ci thème bi feggoo ak El Hadj Ndiaye Lo Ndiaye Toto Abdou Aziz Mafama docteur Makhon Douta Seck gynécologue mi nga xam ne tey moo ñëw tëjal ñu émission bi dama leen doon rek ngeen ñëw di leen baaxewaat ñeenti caabi yi ngeen xam ne Groupe Futurs Médias indil na leen ko ci jeu bu réy boo xamante ne daf koy def jagleel leen leen ko yéen ñi ñuy seetaan. ah ñeenti caabi nag xam ngeen ko caabi bi ci njëkk caabi koofu foor la lu tax caabi koofu foor Groupe Futurs dafa indi vingt cinq millions mais chaque jour ngeen gagné trois cent mille francs. loolu defe naa ni chaque jour daal 300000 baa ngi nii xaw ma tey kuy gagné man nag man boobu ba léegi gagné gu ma waaye 300000 yaa ngi nii chaque jour mu am kuy gagné 300000 francs par jour ba 25 millions yi di jeex benn caabi bi kon caabi koofu foor la gis ngeen temps yëpp ñu koy distribuer. deuxième caabi bi Groupe Futurs Médias nee na dafa indi scooter benn scooter par semaine semaine bu jot ngeen mën a gagné benn scooter. ñetteeli caabi bi Groupe Futurs Médias nee na dafa indi caabi oto lan la indi Peugeot 3008 crossover bi xew ci jamono nee na boobu la indi ñeenteeli caabi bi Groupe Futurs Médias nee na dafa indi kër ci naka appartement meublé appartement équipé complet fan ci diggu VDN bi cité Tobago construit par benn Benja loolu tamit yëpp di ay xéwal yoo xam ne groupe Futurs Médias daf ko indi pour jagleel leen leen ko yéen nit ñi seetaan nee na ku ci bëgg gagné nooy def SMS-al envoyé clé CLE 26 444 26 444 loolu ngay def nga SMS téléphone boo mën a yor su fekkente ne nag munoo SMS ba munoo SMS li ngay def mooy wooteel ci ban numéro. 88 628 03 03 88 628 03 03 wala boo nga woote ci 88 628 23 23 gis ngeen oto bi gis ngeen coffre bi gis ngeen li yëpp dañ leen ko yéene moo tax nag ñu ànd indi bagage bi ndax ñun ak yéen contrat de confiance la ñun ak yéen cofeel la moo tax lii daal laa bëggoon baaxee askan bi su ko defee ñu dellu si ci thème bi Toto Abdou Aziz fu ñu toll. waaw ñu ngi toll woon ci ak euh, docteur. li mu wax ni moo nekk ci biir jigéen tey nettoyé. Hmm. do doderlaan. doderlaan. te noon la. mu ni am na ñoo xam ni dan koo raxas ba mu set ba mu deñ. Hmm. Hmm. kon mais ñoom am na nañu garab goo xam ni bu la ko prescrire mën nga ci am. dëgg la mu indi ci infection. infection foo xam ni ku góor ki mën na ko jox ku jigéen. te ku jigéen ki ñàkk farlu ci boppam mën naa indi mu am xet goo xam day mel ni jën yu nëb. lu yéeme yu yéeme. te bu fekk na loolu ku góor ki dem ba ji jëkkëram dina ko sentir mm. wax ko mu jëm ci boppam mm. docteur ñëw ci mm. li nga xam ni mooy infection yi nga xam ni mooy topp jigéen ci lu dul perte blanche rek nee na normal na moom am perte blanche nee na avant ngay gis say baax ak boo gisee baax ba pare nee na perte blanche lu ci jaadu la dëgg ndax na biiru na na awra jigéen bindoo loolu moo war a moo war a indi loolu foofu daal la docteur tollu woon ak ñun ci wàllu set ak ñàkk set ci ku jigéen ki dëgg na ak feebar bi nga xam ni mm-hmm. ku jigéen ki ku góor ki mën na koo teg ku jigéen ki mm-hmm. te wéy di ko tegee mm-hmm. te du ko sentir moom lu dul ab diir bu tax mu mën a feeñ ci moom fii lañ toll waaye pour jigéen ki daal waaw moom ci ci gàttal moom pour feebar feeñ ci moom dafa mel ni awra jigéen dafa mel ni gémmiñ yi ci feebar yi am ci gémmiñ nag ay feebaru guddeeg yooyu. Mm-hmm. ne na war ak angine. Mm-hmm. noonu la gaaw a amee ci awra jigéen. Mm-hmm. ndax mën naa génne feebar lu mu gën a teel. jërëjëf docteur Abdou Aziz kontaan naa alaaji yow nga am ci la. teg ci ni ñaar ñiy sëy na kenn ku ne war maal sa bopp. sàmm sa bopp. bu kenn ku ne dee doxantu. suñu dajee wér du fa am. nga tafay am dëgg la. ndax juróom-ñaari nit. mbaa ju fukki nit. du ñu bokk ngat gu sell. dëgg la. ku jigéen gi na réglé. Mm-hmm. ku góor ki réglé. dëgg la su ko defee ñaari xet yi ànd. Mm-hmm. te dara raxu leen. Mm-hmm. dara mën na caa génn. dëgg la docteur loolu la wax. na ku jigéen gi na sàmm boppam. na maandu. bokk li gën am solo. waaye ku góor képp na xam boppam te xam ki muy moom itam. su ko defee xet du bari. dëgg la bi ko ñaaree dafa am ndaw su téléphone léegi sama portable ni nañ di ubbi téléphone yi ndax jigéen ñi mën di laaj docteur. fu ñu war a mën a jaar. moom loolu doon wax léegi. dëgg la loolu tam ci la bokk. la. ndax dafa yor émission boo xam ne bi li mhm. lii saf jigéen dafa bari dëgg la te boo ko doon xaaj tey mutulub saako dëgg la góor gee ko yenu dëgg la te nëbbu na dëgg la ndax yu jigéen dëgg la dëgg lu am solo kon euh, lancé na ñu ngeeg docteur euh, su fekkee ne am na kenn ku ko bëgg laaj dara mën na yegg si mais docteur balaa ñuy dem sax ci kyste yeeg mhm. yooyu est-ce que am na ay femmes yoo xamante ne du ñuy dund te amuñu perte blanche du tout loolu est-ce que normal munul loolu munul am munul am mhm. parce que comme ni ma la ko waxee dodeer laa yooyu mm. ñooy nettoyer mm. si biir ba mu foog muy génn tous les jours ah. ba pare dajale ko mm. génne ko ah. te loolu tout foog jigéen bi lu mu lu muy gis la jigéen bi daf lu muy gis dafa taxaw moom lu lu coloré lay doon wala lu ay bu set set trop waaw di toppatoo toujours kanamam mm-hmm. dafay defa ni perte blanche feebar la mm-hmm. di raasu rek mm-hmm. affaire du arrêté te raxasu raxasu yooyu mooy gën a takkal naa seen affaire bi waaw docteur euh, ñu ngi woon ci ay cause ba tey chez la femme mhm. maanaam cause bi tax jigéen war a mën a bañ am doom mhm. ci couple bi moo bëggoon nga dugal ñi ci li nga xam ne moo di kist ak fibrome lan la yàgg nañ ko dégg luy kyste luy fibrome ak yan dégâts la mën a def ah, euh, avant ma lay ah. dafa am benn parce que est-ce que man benn question bu ndaw rek bala muy dem waaw est-ce que jigéen mm. mën naa judd rek ndek ba màgg mm. yàlla def du mën a am doom est-ce loolu mën na nekk bala ñuy àgg ci. ndëkk ko tontu. waaw mm. loolu mën na am. le plus souvent dafay nekk ay malformation mm-hmm. c'est-à-dire organe bi tax utérus bi utérus wala over yi. Mm. dañuy am ay problème mu judd waale ko. Mm. kooku du mun a am doom. Mm-hmm. am na ñoo xam ne sax suñu juddoo seen kanam du ubbeeku. après docteur bi moo koy ubbi yooyu yëpp yooyu yëpp. yooyu yëpp am na. mais avant may dugg ci affaire fibre ma yëg yooyu. Mhm. dafa am euh, ñetti feebar yoo xam ni. Mhm. dama ko bëgg a wax. Mhm. benn bi jigéen yoo xam toujours dañuy am sikkim. du ñu am sikkim. doom. parce que dañu am seen seen seen seen à côté de l'ovaire. genre xuur. comme goro waaw ñoom jigéen lañu amul problème mais sikkim boobu di am mhm. daf koy tere am doom mën na ko dab mhm. comme mën na mhm. ko judduwaale te te loolu loolu ñu tuddee ko am na traitement le plus souvent problème ovaire la dystrophie ovarienne yaa nga ko dee dystrophie ovarienne waaw loolu dañ koy dañ koy faj waaye naqadinaa pecc non naqadiwul faj. non c'est-à-dire ovaires yi dañuy fonctionner trop. Mhm. donc il faut nga freiner leen. Mhm. en lui donna des pilules. Hmm. la pilule euh, euh, matière bi ovaire bi di jur. Mhm. moom nga moo mooy mooy nekk pilule. Mhm. comme pilule la. Mhm. soo ko joxee pilule. Mhm. yaramam dootul soxla. Euh, loolu waaye daal siiñ la ci xale ci jigéen ñi sikkim yooyu ñuy génnee daal loolu siiñ la nañ dem seet suñu siiñee te taxaw gisuñ dara nañ dem xool xam ne loolu siiñ la am na aussi ah. beneen siiñ boo xam ni jigéen dafay jékki-jékki rek ween yi di génne meew kooku dafay dal jigéen ak góor yëpp sax weenu góor wuy génne meew bu génne meew waaw bare na fay nekk góor yu am yaram comme man Eh, ëpp ma tuuti nag. Mhm. <laughs> Ah. donc euh, moom it dafa am problème. Mhm. parce que. Mhm. dafa am si biir bopp nit. benn espèce su. nañ ma may tuuti mu ñëw ci ñettu maladie yi. voilà benn espèce su. benn espèce étage. si biir bopp. foofu dafa am benn organe euh, yàlla mooy Karim. organe bi mi ngi toll ni tête d'épingle. bopp boppu puso bopp waaw. Mhm. bopp puso. Mhm. ñu tudde ko hypothalamus. Mhm. loolu. lu nit rëy rëy rëy laa wax. nekk ngand président de la République et loolu. mooy régler humeur su meree loolu la su jooyee loolu la. su su kontaanee loolu la te toog comme bopp puso. kooku moo géré aussi jigéen jigéen boo xam ne amul doom goro yi topp ko sonal ko huit huit huit du teel a am doom ndax stress bi jóge foofu stress bi dugal jóge foofu foofu mm-hmm. te loolu moo géré aussi règles yi mm-hmm. kooku nu mu tudd docteur hypothalamus hypothalamus mm-hmm. kooku kooku tamit mooy léegi dafa am benn kii boo xam ni su jigéen bi di gis soow uh-huh. te te dara jot ko mhm. biirul nàmpalul mhm. dañ koy dem defal ko rajo mhm. am benn feebar bu tudd adénome de l'hypophyse hypophyse ak hypothalamus benn la ñoo dend rajo lañ koy defal rajo bi dina wane adénome baa fee dañ koy opéré suñ ko opéré mu mu euh, nuñ koy waxat sax mu mu mu normal suñ ko opéré. Mhm. mu jur. Mhm. voilà loolu laa bëggoon yo waaye daal hypothalamus boobu daal li muy ndaw mel ni bopp puso. moom mooy régler ñàkk am doom ak ak ñoo yëpp. te stress bu fa laal tuuti mën na tax sa lépp bloqué exactement lu yéeme tonton Abdou Aziz jële kii ci ligne bi allo. docteur waaw yow la déglu noo tudd ak fan ngay wooy son ex major Arona Diallo. ah ex ex major Arona Diallo. moo maa koy woo à de Louga. waaw si sama infirmerie malades yi fi nekk vraiment de y a des yoo nga xam ne ay extrémité primaire la ñu ak secondaire. Hmm. docteur yaa ngi dégg. maa ngi koy dégg. waaw vas-y vas-y. léegi nag vraiment ñoo ngi ko ak seen doom et que moom moo leen traité ba mu am doom. Euh, vraiment, je suis très content de lui. L'expérience que j'ai eue mm -hmm. avec lui, mm -hmm. vraiment, que j'ai une vraie euh, expérience en matière de gynécologie. Wow. C'est un mm. médecin vraiment qui est extraordinaire et mm-hmm. vraiment, vraiment, vraiment. merci Major Diallo merci témoignage témoignage ak jigéen ju fa nekk ñoo xam ne moo leen faj dañu tëjuwul sax waaye moom il est d'une ah. générosité extraordinaire baax na nag euh, baax na ju mm-hmm. merci gis naa sa message maa ngi lay remercier mm-hmm. di la encourager mm-hmm. gënal góorgóorlu mais euh, ñu ngi woon léegi kon léegi bi nga waxee ñetti maladie yooyu ñu dem ci kyste yeeg fibro mi jigéen ñi toog di déglu kyste ak fibro alaaji kenn xamul lu mu day am suuf gis nga dama indaale sama benn kii gis nga Euh, kii butitu njurukaay la. zoom ko zoomal leen ma butitu njurukaay jigéen bi. docteur tàngaay ni ma téel la comme ça nga gën a mën a expliquer. voilà yow nga expliquer Abdou Aziz téel. Mhm. fibrom. Mhm. Babacar nañ ko zoom. si liy téye ëmb. Mhm. daf si bare. Euh, ñu ngi gis fii. butitu njurukaay bi dañ ko dagg. ani zoom bi. léegi. fii lii si digg bi nii. Mm. fii la doom bi di tëdd. fii la doom bi di tëdd. Mm. dafa am benn espèce su darab ñu tudde ko muqueuse. Mm. darab darab boobu si la doom bi. Euh, di suy soqe ko si lay si lay si lay. samp si mm-hmm. lay samp. Mm-hmm. fibrom kon lii mooy bëtutu njugukaay jigéen. demal waa ñu ngi expliqué fibrom. mën na nekk fii si biir. foofu su fa nekkee dara du fa tegu. dara du fa tegu moo tax souvent. Mhm. ma am malaat mhm. gis lii. Mhm. ni ko soo koy opeere naa am na koo xam ni. wallahi deux mois après mu jël mu mu ëmb. te toogoon na ay at. musul am doom. ah. ñëw. échographie rek lañ ko defal. ma ne ko lii de soo bëggee. soo koy dindi di am doom. mu déglu ma. ma opéré ko. mu am doom. kooku du ngóor a mhm. c'est simple mhm. yow sax xam nga ne kii fii donc mhm. su dañ ko fa teggi rek voilà dëgg la te mën na fa yegg nekk ay fukki at ak ñaar fukki at jigéen bi di toog rek di gën a rëy di gën a rëy rek léegi sax nga mel ni ko voilà hmm. léegi fibrome bi hmm. mën na ñëw fii nekk bu ndaw ñëw fii si eh, kii trompe la maanaam ci yoon ba si yoon bi trompe bi ñëw si angle bi fii hmm. tuddee ko fibrome angulaire hmm. euh, dara dootu fi aw te foofu la mbir mi war a aw ba exactement donc maanaam ku nag taxaw donc nga nekk médecin bu mag a mag hmm. sooy def échographie bi hmm. wala euh, ñu defal la hystérographie ay rajo ñu gis ko am na beneen boo xam ni bu gën tuuti lay doon bu tudd polype accouché par le corps moom tam fii lay placé. pour dindi ko. koy jàpp ak rek bis ko wañaar ko. topp pince bi. aajowul opéré. soxlawul donc c'est des gestes simples qui mhm. am na yeneen fibrome yoo xam ni. Hmm. si yàpp wi lay dekk. Hmm? fees fa dell yooyu tamit ay fibrome la yoo xam ne dañ koy dindi. mais fibrome yi dañu mel ne ay taab. waaw ay xam nga fibrome. Mhm. docteur walla euh, euh, garabu garabu bu la ni. Mhm. sëriñ yi ni def publicité si. Mhm. télé beeg yooyu. bu la ni mën nañ ko dindi. ak garab. du dëgg. nay leer. parce que fibrome. ay fibre la. polotu fibre la. da mel ni polotu wëñ. fibre caas rek la. kooku gisuma. Mhm. ban garab wolof bu koy dindi. Mhm. Mhm. dindi ko ak opéré. teggi ko moo gën a gaaw. moo tax moo gën a moo tax soo demee gis ñun la sëriñ bi nii lii lii lii lii. daf mel ni sëriñ bu ñëw taxaw nii la. damay fay ja fat jabet. day raconter histoire. parce que foo xam ni américains yi def nañ fa ay centaines de milliards. trouvé guñu garab. bu baax. xaw ma fan la. suñu benn pël bu jógee. Mhm. fuuta fii. Mhm. sama mbokk yi waaw mën na ko fay. <laughs> léegi léegi euh, kii euh, fibrome balaa ñu ñëw ci kyste yéen mën ngeen ko opérer mu dellu si waat waaye su la soo ko opéré dootul dellu. soo ko opéré. Mm. su sëy. Mm. yéex. Mm. mu dellu si. maanaam. c'est-à-dire soo ko opéré. fekk mu am jëkkër. mën na gaaw am doom. Mm-hmm. kii parce da ngay wax rek ni nga mhm. néeg bu kenn dëkkul mhm. ay lënd la ah, maanaam daal sooñ ko opéré il faut ñu occuper fa occuper fa il faut mu ko ko il faut que ñu occuper ko exactement maanaam soo ko occupé wul daal lënd yaa fay ne te fibrome ci ëpp ñàkk occupation voilà la nature a horreur du la nature exactement ba pare fibrome soo ko amee suñ la ko waxee mhm. opéré ko moo gën nga bàyyi docteur ni la da nga koy opérer nga nekk fa di wax man daal docteur bii daf ma bëgg opérer mm-hmm. seer na wala xale la waaw mm-hmm. seer na et cetera mm-hmm. ah dafa bëgg lekk sama xaalis et cetera bëggu lekk sa xaalis parce que soo ko opéré woon foo jaar ala kuliyaal yi sooy gudd fan di ko opéré parce que dina rëy rëy koo xam ne na la indil ay problème mu saw na la indil ay problème mu rein et cetera te yooyu kenn ñaanu ko te foo jaar opéré ko kon boog su fekkee ni wax nañ la ko yaa ngi am trente cinq trente six ans ba 40 ans. Mm. dem dindi ko. mais jeune fille bi nga xamante ne dafa am fibrome war a toll ci 25 ans. Mm-hmm. am fibrome amagul jëkkër. Mm-hmm. daf ko war a dindi doonte sëyul. daf koy dindi. mais su ko dindee te sëyul est-ce que du ñëwaat. ah su comme kenn occupé wu fa. su sëyul kay mu ñëwaat. ah kon kon mu bàyyi ba am jëkkër doo ko dindi moo gën. waaw mais su fekkee nag am jëkkër xam nga am jëkkër tamit. yàlla rek a xam nit ñi takkatuñu. dëgg la am jëkkër ah nit ñi takkatuñu <laughs> waaye docteur a neex mm. <laughs> léegi kon léegi ñu dem ci kyste lii mooy appareil génital lu jigéen ñooñu dem ci kyste kyste dañu ne moo gën a dangereux fibrome waa parce que kyste mm. mbuus la buy nekk mm. buy am ndox mm. ñetti façon la am bu ñuy wax kyste séreux mel ni rek kyste bu am ndox bu xaw a euh, luus daal ak kyste ñu tudde ko cystadénome mucineux mhm. kooku benn kist la mbuus la boo xam ne dafa am ay poche ci biir mhm. biir soo ko ubbee mhm. et dafa am ndox moo xam ne dafay dafa xaw a diis am beneen bu ñuy wax kyste dermoïde boobu soo ko ubbee sax da nga si fekk ay bëñ fekk si ay ay karaw fekk si ay weex hmm? fekk moom la juddaale gis nga lay tudd fekk ci bëñ fekk ci ay weeg fekk ci yooyu di ko créer hmm. desitu yooyu création yooyu ñooy nekk foofu waaye tout à fait mës nga dégg li déedéet génne ko bur bi ubbi ko fekk ci bëñ fekk ci ay ay weeg yooyu yëpp fekk ne looloo nekk ci biir bi voilà mais loolu yéen soo leen ko tijjee doo leen jommi ah doo jommi xam nga li li ngay fay fekk parce que soo defee échographie hmm. man su ma la dafalee dinaa la wax ne lii kyste bii la hmm. da ngeen di ko xam selon forme ah, léegi kis nga fekk si vrai bañ euh, euh, karaw comme karaw bébé mhm. même bébé boo wat ba pare waaw exactement fekk si ay we wee loolu daal kéemaanu suñu borom la kéemaanu suñu borom la kenn mën ko expliquer ñu nekk buri rek sax si dinañ ko expliquer ñun mhm. bon mais duñu dugg si loolu mais loolu kii la waaw waaw waaw bon lu tax ñu bañ kist mhm. mën na xam nga le plus souvent dafay am tànk mbu xam nga ballon xale yi. Mm. ñi ëf. Mm. xam dafa am embu. waaw kyste noonu lay def. Mm. léegi mën na wañaaru. Mm-hmm. su wañaaroo. douleur boobu fu ñu jaar opéré la. benn. deuxièmement mën na tojal boppam. te su tojee. nit dóor la sa bi si biir noonu sans tay ko ak et cetera mm. te yëpp dafa indi complication complications mm. opération mooy gën a compliqué il faut que ñu génne ko raxas sa biir ba mu set mm. fóot ko ba mu set et cetera ndax dégâts yi voilà alors donc li ñu wax ne kyste soo ko dencee tam mu joxe cancer dëgg la waaw c'est-à-dire kyste mm-hmm. am na si boo xam ni chaque mois mm-hmm. dafay ñëw mm-hmm. su ñëwee chaque mois ñu tudd kyste fonctionnel du feebar moom lu ko tax a ñëw moom ak lu ko taxa a jub teertu si doom c'est-à-dire comme neenu ganaar waaw avant muy am hmm. coq bi hmm. coq bi hmm. noonu lay mel doo jigéen dafa am ay nen suñu nee les œufs léegi day ñëw pour teertu doom waaw c'est-à-dire su ëmb di am rek waaw ñu commencé dundal doom ji ci kéemaanu suñu borom voilà mais su fekkente ne nekk ko doom amul moom mu dellu fa mu delluwaat mu seey ba beneen mois mu ñëwaat ba beneen mois mu ñëw wala mu su ko neexee du ñëw euh, toogaat deux mois soog a ñëw. nañ jël ko ci ligne bi El Hadj wax ko. allo allo way salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si. ñu ngi fi noo tudd ak fay wootee. na wàññi téléem bu baax. mais da ngay wàññi sa télé. te déglu oh, yow ci kaw. wàññi ko nga déglu ak sa téléphone. Euh, dangay yëkkati baat bi tuuti soxna si. da ngay yëkkati baat bi tuuti. waaw waaw ma ne. waaw. Euh, man infirmière d'état laa. Uh-huh. mais vraiment émission bi daf ma soxal lool ndax euh, man it dama sëy ak aw ma mosuma am doom. fu uh-huh. nekk nag dem naa fa faju mais daal dañ ma naan gisuñu dara li fi wax yëpp def naa ko ay hystéro ay écho ay yooyu yëpp def naa ko. Uh-huh. mais daal dañ ma naan ma amul dara daal. mais nag dafa am benn gynécologue boo xam ne bi moom j'ai retenu ce qu'il m'avait dit c'est-à-dire puisque j'étais je suis diabétique mu ne ma déséquilibre euh, sama diabète ak hypertension bi mën na causer stérilité bi cest biir dire féconde sama kii kii du yomb daal jël grossesse ci man du yomb loolu daal xaw ma def tuuti problème damay toog di ci réfléchir d'autant plus damay gis ay diabétiques yoo xam ne dañuy am doom léegi daal ma bëggoon mu indi ci tuuti leeral daal docteur dégg waa dégg naa li mu wax. Mhm, euh, wax na dëgg. Mhm. xam nga jabet mën na la tere am doom. Mhm. léegi da ngay sa jabet ne la ko équilibreel ba nga normal. jabet bi euh, dafay mel ni amatul. mais jabet di dégg fi ñu lay wax toujours moom infirmière la. jigéen bu ëmb am jabet. surveillance bu metti la mhm. mais am na mhm. bare na mhm. ñi ñi am jabet fii am jaboot et cetera mais on sait que jabet dafay empêcher nit am am doom mais c'est pas obligatoire mais luy solution mooy ñu équilibrer ko jabet équilibrer jabet loolu nga gis ci lim la laaj voilà ah, ñu dellu si ci kist yi waaw kist yi léegi kist yooyu kon moom tamit dafa laaj opération lu tax ñu daan kist moo gën a dangereux fibrome loolu laa bëgg a xam. ci cause ah toj gi muy toj. maanaam kenn kaf ak yow sax laal la nii. mais hmm. si man de bon moo gën a yomb opéré diabète kii. Euh, opéré fibrome hmm. ci yow. waaw sax ci yi opéré moo gën hmm. parce que kyste bi souvent dafay ànd ak benn tànk. tànk bi rek ngay ngay ngay ngay ngay takk ngay takk séparé ko kist bi jeex na. jeex na mu abal la. waaw mais nag am na kis yoo xam dañuy rëy. Mhm. dañuy ngande. dañuy ngande waaw. Mhm. mën a jur conséquence wu ñàkk. voilà mais góor du am kyste. góor am kyste. ok jigéen mooy am fibrome. jigéen mooy am kyste ok su fekkente ne amu leen loolu laa mais dama to dama toto ab man nag damay laaj ci. wàllu benn terme bu may dégg. Mhm. mu bëggoon nga expliquer ma ko. une grossesse ultra utérine. extra extra utérine extra-utérine. te en général. li ma ci gis dañ naan. am na dina ak foo xam dañuy dindi benn trompe. ma bi. te loolu ndax mën naa. grossesse extra-utérine mooy. xam nga grossesse fii lay tëdd. waaw na na nañu gis nañu gis mu leer. fii lay tëdd. extra-utérine fii lay nekk si biir tromp yi. ah bu du nekk ci biir utérus bi. si biir trompe dafay génn nekk si biir tromp yi. soo déggee toujours ñu ni diw dee. tonton Abdou Aziz loolu loolu mooy lii gën a rey jigéen day reyaate waa leeralaat ko fii nga ne fu mooy lii gën a rey jigéen mm. suñu professeurs yi mm. nañ def suñuy jàngal mm. dañ lay wax grossesse extra utérine soo demee ba sa xel nekk ci rek ubbi na opéré ngay seet jigéen sa xel nga am xel ñaar grossesse extra wala du moom ubbil pour sauver ko gis nga. parce que dafa gaaw a rey benn bés dama mës a am. Hmm? aji xam-xam xaw ma bokk ci. benn bés dama mës a am clinique wooma hmm. léegi deux trois fois. Hmm. wuyuwuma. à chaque fois man sama jabar jëlal parce que dama waroon dem Touba. en mission. ci màggal. sama jabar woo ma trois fois ni ma même malade bi la si mm. yàgg ma ni nëgal rek mm. ma wuyu mm-hmm. ma wuyu benn infirmier bu nekkoon ci clinique clinique ba du ma wax tur bi parce que mm-hmm. publicité la mm-hmm. ni ma ah am nga fi benn malade de diw la mais elle maanaam mu ngi jooytu méttitu biir bu tar méttitu biir bu tar ma daw maa ngi sol suma tenue militaire ma ne su ma fa jógee rek dem Touba ma ñëw maa ngi ñëw fekk ko ñu ngi ko teg ci chariot si couloir bi mi ngi sukkuraat hmm? mi billaahi loosu damm na kii na rapidement lañ ko dugal rek ubbi ubbi keroog hmm. nettoyé wu ma xam nga balaa ngay opéré di nga nettoyé ba am temps. Mm, mm. ubbi pour sauver ko. nga fekk ne grossesse grossesse bi mooy éclaté mu perdre au moins trois litres de sang. Mm-hmm. ce jour-là ña fa na ñëpp ñoo ñëw dimbali ndax demoon na ba noppi. waaw waaw yàlla def mu mu fekk na ci grossesse yi ñu laaj yi nga xam ne. teguñu foofu mu doon tegu ci tool c'est très important. Euh, loolu tam infection ya koy joxe. Ah, infection yee koy joxe. Hmm. parce que <coughs> ci trompe yi. MST yi. trompe yi. Hmm. fii ci biir. Hmm. dafa am muqueuse comme euh, muqueuse bi nekk ci gémmiñ rek. mais dafa am ay karaw yu bare yu sew sew yu bare yoo xam ne. doom bi su fa togoo. karaw ya koy pousse. ne du sa place pour mu ñëw fii. waaw waaw. ci la soo amee infection nag karaw yooyu dañuy dañuy taqaloo. du ñu def dara. du ñu def dara. léegi nag kooku ñëw rek. grossesse foofu bi di màggee. taxaw fa ci wet gi. waaw. te day rëy. bu gaaw. waaw waaw. lu jar xam. mais jigéen bu am information. Mm-hmm. dina ko moytu am na beneen malade boo xam ni. Mm. dafa xëy ni dafay dem ànd ak jëkkëram Louga. Mm-hmm. mu ñu war war a dem tabaski. si yoon yi mu ni jëkkëram sama biir a ngi metti nii. li jaaxal na ma. fekk mu ngi ëmb. waaw. Hmm. ëmb bu ndaw. Hmm. ñu retourné indil ma ko muy grossesse extra-utérine. Hmm. kon daal kooku naroon na dem si yoon wi. waaw dee si yoon wi. kon ëmb bu ndaw warut a ànd yenn métit yi. waaw léegi. coono day déet doo temps bi mënul jeex. am na benn affaire bu ma bëgg a laaj. mais non man sax man yi ma bëgg a laaj. mais mais mais lan mooy waral. ñuy ligaturer lan moo koy waral docteur. ligature pour que nga bañ am doom parce que gis nga doom bi. waaw fii lay aw. mais tonton Abdou Aziz. Euh, fii lay aw si kii yoon la. Mm. ñëw fii fii. tëdd si fii. Mm. soo ligaturé fii. du fa aw du aw kenn dara dootul aw da koy dagg fas fii fas fii. mais benn bi est-ce que dama bu benn bi fonctionne. ñaar yëpp ngay def. ligature ñaar yëpp ñaari côté yëpp ngay def. waaw léegi léegi léegi léegi xam nga nu ñuy def waxtu wi dab nañu docteur dañ koy def à suivre mhm. parce que am na question yu bëri dañuy wax ci jigéen boo xamante ne mu ngi sëy ah couple yoo xamante ne mënuñu am doom àddina bi yéen ñuy déglu te am na lu bëri lu ñu war a ndax am na infertilité provisoire am na infertilité secondaire yoo xamante ne yooyu war nañ ko wax ba ci ñaar ñu bokk ba ci feebaru deret ba ci ay yu bëri ah. kon li ñuy def daal mooy dañuy wax askan wi ne tam bi dinañ ko continuer ba semaine prochaine yow tamit nga may ñu jeudi prochain tamit nga toogaat fi waaw dégg man nga may ñu ko wax docteur li may wax dama bëgg docteur docteur mm. jigéen ju wérul mm. tey xale te mus sa jaar yal na daje góor bu am yërmande parce que toppatoo jigéen. Mhm. ak soigné jigéen joo xam ne xamul dara te ëmb. Mhm. na tax xelam daal lay tax rek ëmb ba. ëmb ba ci yoon waaye fitna mënut a ànd ak. ëmb bu ndaw waaw waaw. yooyu yëpp ay formes mën a ji góor gi la ngay wax. ak ak goro yu jigéen ak goro yi. Mhm. ok paquet boobu dañ koy daj. ah boobu boobu dañ koy daj parce que stress la violence la forme violence la sax forme violence la mais daal docteur tàggool dig ñu na kii nag. jeudi prochain moom. Euh, moom vraiment kontaan naa. Mm. parce que euh, j'ai l'impression que on a passé une heure trente euh, studieuse. Mm-hmm. mën na am nag ni am na yoo xam ni dugguma ca. Mm-hmm. wala waxuma dëgg dëgg dëgg nan la. Mm-hmm. c'est pas parce que dama bëgg rek nit ñi comprendre. parce que ñu ñuy déglu man waxuma ak médecin waxuma ak sage femme waxuma déedéet déedéet déedéet mm. dama bëgg ñu ñuy déglu mm-hmm. mën a comprendre mm-hmm. certaines choses mm-hmm. loolu la dañuy survoler rek voilà léegi nag na nga ñëwaat alxames maa nga point E. en face de la rado. waaw sa téléphone lan la. wala sama cabinet nekk. sa téléphone téléphone bi. 8 24 80 07. ñaata. 8. 24 80 07. 824 80 07. 824 foofu. maa en face de la rajo. Mhm. Euh, sorewuma Siti Diaby. Mhm. voilà c' est important. c' est important laaj sax yëpp dafa neex. kon ba jeudi prochain. <laughs> Toto Abdou Aziz yaa ngi délecté tu sais ma je. ma du ma wax sax ma. <laughs> waaw waaw beaucoup de yi di nuyu rek sama benn xarit. Mhm. sëñ ma Mbacké sama xarit di ñëw ci man sama rak. sama xarit di ko ziar mais danga waxoon sànq. Mhm. may jàll Cheikh Ahmed Tidiane bu sëñ Abdou Aziz Dabax. Mhm. Euh, gorom moo génn àddina ci ndar. Euh, Jeanne Ndiaye soxna Jeanne Ndiaye. moom moo nekk ambassadeur Sénégal ci Qatar. ndeysaan ndeysaan Cheikh si. ndeysaan noonu la tudd. ndeysaan ñu ngi koy jaale bu baax a baax ñun ñoo groupe ak ñoom Ndiaye Lo. di nuyu bu baax sama yaay màggat la ma nga ma ngay seetal. màggat de <laughs> di nga sant di sant docteur. am na chance <laughs> ci expertise bi macha allah. Mhm. ak ci important. importance su thème bi parce que li tax nit ñi duñ téléphoné sax. Mm. am jigéen ñoo xam dana da la ñu bëggoon laaj. ci la docteur ñoo xam naa moo tax laaj bi bariwul. Mm-hmm. Adja Degene. waaw incha allah jërëjëf euh, soxna Degene maa ngi nuyu euh, euh, sargal baax sama xarit docteur. yal na la yàlla jàppale ba. bañ a def toor. Mm-hmm. yàlla na yàlla musal. amiin malaat boo dajal rek. mu wér ak jàmm. Mm-hmm. amiin sa yéen ak sa ubbiku. jar na ko. docteur day woyof te neex mhm. mooy tax malaat xelam dal dëgg la bu ko tëralee fu mu jaar jóg ndeysaan yàlla na la topp ndeysaan di siyaar rek sëñ Mansour Niass mhm. euh, sama xat nik almadi di ambassadeur mhm. ak ajaratu Yaama Saw mi ngi lay nuyu ndeysaan ndeysaan cité biyaa gi di ñaan lu baax nag euh, euh, Cheikh Sidiye Diaby sunu xaddi sunu sëriñ ak sëriñ Baara Fall arrêt Duubalees ak Mbarak Ñang waaye di gërëm nag bu baax soxna diggan hmm. euh, Ousmane euh, maam fili mu Ousmane Tanor ah, ah, ah, moo jaar fii ah rafet na ak nag ndey may docteur rafet na rafet na euh, di gërëm nag waa Banjul ndeysaan yërëti Kole Seck Mara Sakho ndeysaan ak Yeeg Thiam sama doom dafa nekk li ne ne Diallo ak première daam macha allah maa ngi leen di siyaare bu baax ak di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 ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke Alxuraanul Karim dañuy prolonger thème bi ci kàttanu yàlla jeudi docteur Makhone Douta Seck mayaat ñu ci kàttanu yàlla euh, pour que euh, ñu toogaat fi yeggali ndax lu ñu bëgg xam bëri na di remercier ki maa bi yee madame Thioy di remercier tamit salon Déguène Chimère euh, ci point E kon ba lundi ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf